ñetti ñetti pàcc la benn bi mooy assainissement communautaire bi nga xam ne conventionnel population yi di ko def maire yi encadré leen dooleel leen xelal leen uti leen ay jumtukaay yokkal leen seen financement ba ñu mën koo def loolu mën naa am egg na trois milliards deux cent quatre-vingt-cinq millions bu ñaareelu pàcc bi nag mooy lépp li nga xam ni ndoxum taw bi la concerné wante pas canal yi gën a mag ndax canal yi gën a mag dina jar ay milliards yi milliards yooyu état bi la mais il a canal yo xamni ñu ay canal secondaire lañ koy wax ville bi réaliser prévoir nañ ci presque 3 millions ci 3 milliards 37 millions ci juromi at bi ci bi composante soft mais lu am solo la plaidoyer plaidoyer ndax lan ndax amna na xamni ñun amuñu dolem état mo koy def bu ko plaidoyer moy tax ñu bañu terminer bu ko tàmbal muy ñaax état ànd ak état pour mu defar ko mooy que par exemple canal Bodé yéen canal Bodé mooy canal bi nekk këri kaw tey jii bu canal Bodé biñ ko defaraatoon def ci station de pompage bu baax mais doo gisati ndox boobu këri kaw canal central bu pare woon tey jii ndox mi jóge mbiri ne ñëw këri kaw dootul amati canal de l'Ouest ba léegi ñu commencé tëj boobu ba léegi mënu pare ci bés bu pare woon loolu donc plaidoyer dafa am solo dafa am trop ba ci remplacer yenn canaux yi loolu mooy parlement bi nga xam ne togg nañ